bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi saalika fal yafrahu huwa xayrun mimma yajmaun xool leen li suñ boroom wax foofu dane ngëneelul yàlla ak yërmandeem na ci ñëpp bég ndax luñ dajale tey jii ak ëllëg suñu borom nee moo ko gën huwa xayrun mimma yajmaun man nag fadlullahi danaa ci wax tey dara man mii sëriñ Fall lañ ma tuddee ñu ma gën maa xam ci galas jatara waaye dafa am benn bis ma toog ci wetu Serigne Saliou te duma ko waxal lenn loo xamante ni bii wóoruma fii ci janatul maxwa sëñ bi xam nga bu tëddee moom du taal làmp sëñ bëggul jeneer ñàkk làmp yi tax na ba mu geesoo gis ma dana kii ana kii ana kii sax la wax ma dem bay bëgg a tontu sëriñ Abdoulaye Jaxate ne ko fàllu jatara la mu ne ma yow nañ lay wax galas ndax tur woowee kañ ko tuddee woon doy na ci sëkk loolu sëñ Saliou ma ko wax kon fàddulullaahi dafa rëy saalika fàddulullaahi yutihi man yasha wallaahu wasul fadlil azim ndax sëñ Fallu mbiram dafa doy waar ndax dafa bokk sëriñ bi lépp sëñ bi wëlbatiku di waajuram moom nag mu def loo xam ni doom ju ko def ci ku mel ni Serigne tubaa faaw nga am ci nga ñaay ndax jël li ñuy wooyee sëg njuréel nga jaay ko jënde ko ak taali bi ñu jox la njëgg nga delloowaat ko jox ko àddiya loolu ñu ngi ko defee jolof gi ndax sëñ Fall dafa wax ne maak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Massamba ak sëñ Mor Roqi Bousso sëñ Mor Roqi Bousso ñoo ànd dem jolo fekk fu sëriñ tubaa sëriñ tubaa jékki-jékki ne duma bàyyi kenn sëriñ sëñ Fallou ne na maag sëñ Mor Moustapha ñu génn mu ne duma nijaay kenn sëñ Mor Roqi Bousso génn mu ne duma magi kenn sëñ Massamba génn waaye nag li li nga xam ne moom moom laa nekkee ku ci ànd ak man may sa baay di sa mag di sa nijaay sëñ Fallou nee na ma dem man jël sama kayit bind bind ci la ma la ma ci bind muy lan yaa ayuha sayqu nafisul murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja yow sëriñ bu gànjaro bu seer bi sayqun nafis la sëñ la wax sëñ tubaa yow mi nga xam dañ laa yaakaar yow mi nga xam ne li tëju woon yaa ko tijji gis nga ñaari murtaja yi murtaja bii lu ñu yaakaar lay tekki bii lu ñu tëj loolu la ñuy wax jinaas taam ñaari baat yoo xam dañoo nirootu bokku lu ñuy tekki yaa ayuha sayxu nafisul murtaja yaa fatihan maakaana xablu murtaja loolu boo ko waxoon sax ku dul sëriñ tubaa du ko yelloo waaye faw mu ma a bërbëri yow sëriñ bu seer bi te liñ yow lañ yaakaar te li ubbi ubbi ko li tëju woon lépp yaa ko ubbi sëriñ bi ne ko waxal mu ne ko bé tu bu nu watiya bil iradati lakum sëriñ tubaa sama ndoomoo gi sama digg ak yow jaay naa ko jëndee ko ak talibe ñu ne sëñ bi loo ci bëgg mu ne ko li kay oxsa bi xarqi aada xotti gii sëñ fal doon xotti baax lu wax mu am bu leen defee ne fenn lu ko jëlee lu dul jaay gim jaay ak njureelum jëndee ko taalibe rek ndax lam jaay dafa seer ndax sëñ tubaab mooy sa waajur lu ko gën a seer amut daal ne ko nag min baadi mastaraytumooha min nii ahdaytuha lakum bi xëy xëyri man ni ñi jàng grammaire xam nañ ne sëñ Fallu damirim dellu sëñ Tuubaa yëpp damirim mbooloo la ngir ngir ngir màggal ko ginnaaw bi ko jëndee ci man joxaat naa la ko addiya waaye duma la ci ñax min bi xëyri man yi ndax am na ñu joxe addiya pare daan kër sëñ bi bu doon doon toon man dara du fa baax sëñ sëñ Fallu ko nag man du ma def loolu dama la koy jox ba noppi boole ci almet ci misaal ni ko waa Daaru Salaam defee min baax di mastaretum waa min nii ahdaytuha lakum bi xëyri man ni dajaa teg na ko fal taqbaluha na nga ma nangul addi addiya ji yaa malaasu yow wéeruwaay bi karaman ci sa mbaax na ko nangu nag daal ne ko daal ne ko laa siltu moo baynal baraaya alama yow sëriñ Touba da ngaa mel ni drapeau bu tiim àdduna àdduna jëpp nga tiim ñëpp nga tiim ne sëriñ tubaa tontu na ko dane ko li ma la dencal ci seddu xol ci lii nga ma wax kenn xamul nu mu toll dana ko falaa taalamu nafsun maa ox fee loom ñu bëri dañu jàpp ne Sëriñ Tuubaa na ko falaa taalamu nafsun maa ox fee loom min lii nga def tey neex na ma neexit woo xam ne li nga ci jëlee kenn xamu nu mu toll daal na ko yasurrukum li nga def da nga ci bég di nga ci bégle wayan faakum dana la jariñ wala yadurukum doo ci loru doo ci lor keneen sëriñ Fall li nga def tey bég naa ci bég ma ko bi daal bindaat delloo ko léegi sëriñ Tuubaa lii la bëggoon dane woon nañ ma ajal yi nañ ma tabaxal jumaa ji nañu ma taalal jàngu yi yàlla dogal aj gi sëñ Falloo ko def ànd koog maam seex Anta maam Cheikh Anta ànd ak ka tol ka topp ca taawam ànd koog sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso ànd ak ka topp ci taawam ñu ànd ak sëñ Fallou dem defi ko sëñ Fallou sax bi bi ñuy waxante maam seex Anta na lépp loo xam ne dërëm dana ko fi lijjal maa koy def sëñ Mbàkke Buso lépp loo xam ne dañ ko fi laaj ci lu jëm mbindum ndeyjoor ma maay tontu. sëñ Fall lu bu bëggee mu indi kaaba gi léegi ñu aj sëñ sëñ sëñ maam Cheikh na ko bàyyi lii ngay wax dangay waxal leneen te bàyyi li ngay wax mu ne kon nag maa gaaranturó yi dañ dem ba ñëw kenn du faatu ñu ànd dem seen aj gu rëy googee bu yàlla dogalaatee jamono jii ñu jël njàngam Touba teg ko ci loxob doomam muy sëñ Mamour Jaxate loolu sax meneen mbir la moo tax gis ngeen sëñ taxa bi muy wootee université bii nga xam ne képp ku fekk wutoon liggéey jumaa ji bay boo xam ne sëñ Muntaxa indil liggéey boo xam ne moom liggéey jumaa ji dongo yam ndax yonent bi dana al madarisu qabla al masajid bala ñoo dem ci jàkka sax dañoo dem daara yi ba noppi te Sëriñ Tuubaa moo waxoon ni sama daara ji doon na daara joo xamante ni bi yàlla tabaxal na ba ko noppi kon tawféexi mun Muntaxa la waaye lu sëñ tubaa wax day am ndax jumaam ji ba naan wax fi li man banaw bi naa aharafi kooku fii lu maa din la yàlla yàlla yàlla na nga jéggal ñi tabax tabax bi kon te bañ koy tabax di ko tàmbali ko fondement fekk bu Sëñ Tuubaa kon lum lu la si munus faa waxoon ne lum ma sax wax moom Sëñ Tuubaa ma téye kaas bu kafe kaas bu kafe li may wóor ne kaas bu kafe li Sëñ Tuubaa wax dëgg su moom laa gën a gëm ba mu ne bil Mustafa li banal xuduusu madrasatan bihaa yasulul asa wal jahl wal kabadu kon Sëriñ Fàllu Mbàkke Tuubaa gii ku ci seppoon loxoom dara du fi des moo aji moo moo àggale jumaa ji ba mun ne cot coleet mu ne sëñ tubaa kamaa xat kunta taamulu yaa xadima biyee unita fii daari naimi fa kun fii nimatin abadan muqima muafan murtadan sayxal xadimi gis ngeen foofu yi laa ma sa déggee kuñ jox ndigal mu sañ taxaw ni ni nga ma ko digalee woon ni laa ko defee sëñ Fall laa ko ma sa gisee bi ni ma digalee woon jumaa ji laa ko defee mbàkke kay yëf yaa ngi nii ñoo ngi déglu ndigal ba xam lu mu war wax wala lu ni nga ma ko waxee woon ni laa ko defee loolu doy na waar lool ba loolu jàllee borom saam mi nga xam ne àdduna war nañ koo xam sëñ Fallu def ko nu doy waar ndax xam gum xam la fa ne ndax ndax sëñ Fallu dana wax ne ku dul ki ma joxe ak kiñ ma jox maa la raw wala ñu def nañ lañ ma lañ ma def muy borom saam moom lañ ko jox sëñ Tuubaa lañ ko jox nee na ñaar ñi ku dul ñoom moo la raw ku dul kiñ ma jox ak kiñ ma jox rek maa la raw. moo tax ba muy dem Mbàkke di ko di ko di ko di ko jaale ji ba sëñ borom saam làqoo danay wahal lil xasri bakkata in alamat biha saba u min sanadin mujiri bekkoor bu ñàng bu naqari bu ñëwee Mbàkke kan la ñuy wéerooti daal ci palay Mbàkke yi ba sëñ fal naan palay Mbàkke boobu ay sàkket sa ak yu baax wan waaw ba mu ne wahal lil la jëm bakkata sëñ Fallu moom yi ba mu ñëwee tabaxal borom saam barabam bi ba noppi muy jumaam ji nga xam ne sëñ Abdou Yàllaay buur mi ngi koy tabax sëñ Falloo ko njëkk tabax ba mu ko tabaxee ñëw ci men bar bi ndax xam nga lu tax ma tabax ka ñu ne ko déen mbàkki mu ne koy jox àllarba ndax ku la jàngal da koy jox àllarba àllarba laa séq ak borom saa moo tax ma di ko jox sëñ Fallu fu lu ne fu lu baax nekk lu ne sëñ Fallu lijjanti ne ko ba sëriñ Tubaa di wax ne kas du rajabin akraman yi man de mënumaa mënumaa taxaw wax ne sëñ Falloo tax muy wax waaye lu ci féete ko sëñ Fallu amut ba mu ne kazu rajab man man sëñ Tuubaa kazu rajab teral na ma te sëñ Fallu ne yonent bi dana lay mën a cëpp nee na yonent bi dana lay mën a cëpp mu nekk fii lu am jox ko doomi sëñ Tuubaa yi ak njabootam mu teg leen ne buñ ko waxee Mbàkke lii nag mu ne cerey bàyyi jàmbur duma ko xonte sama doom loolu rek la sëñ Fallu daan wax moo tax sëriñ Saalu daan daana wax ni sëñ Fallu lu ak njabootam am jombu leen ndax dafay bàyyi woon ak njabootam nekk ñun lu mu am ñun la ko jox bàyyi ak njabootam mu naan cerey bàyyi jàmbur duma ko xonte sama doom loolu rek la Sëñ Fallu daan wax benn doomam boo xamante ni Sëñ Fallu jël na alal Sëñ Tuubaa bi jox la ko amut waaye gis nga li leen ci yàlla fayee tey mooy koo ci dem rek fekk nga këram muy ñende li ko waral nag mooy seen moo jaayante woon seen bi gii ñu di waxee nag ñoom sañatuñ ko bañ ndax li sax sañuñu ko bañ mooy Sëñ Fallu moo jaayante ak taalib bi dugal laa leen nii ci biir ci taalib bi rek lañ mën a dox sëñ lu nekk fi yoon wi mu dajale ko yërmande ji rëy fu ne àdduna di ko wër ku ñëw ci moom du la wax foo jógee wala foo bawoo wala loola noo mel danaan la rek ku ñëw rek mu ne la euh, foo bawoo du la ko wax ye foo jógee du la ko wax luy say aajo rek la la sëñ Fallou wax nga wax ko mu faj ko mën naa laa jox tey missaal ku ne xam na ne am ponde amul solo waaye ci misaal yërmande ji tax na policier jàpp na am pon waxuma nag di encouragé nit ñi ngir defe ne am pon lañ ko war a jëfandikoo de dama laa bëgg a woon yërmandeem ak na ko suñ fal lu jëntee policier bi bu ko waaj ni suñ fal lu moom pon bi dana ko nañ dem ndax defe naa ne waa ji bu àgg moom kër suñ fal dañ koy rey rek ñu agsi ci ndindi suñ fal ñu ne ko ah moom kat nee na pon mi yaa ko moom suñ fal ne waa ah, maa ko moom waay waa ji daf na xewu di xoole sëñ fal ne ko daal daal daal ne waa ji bàyyi ko mu dem rek kër rek kër rek kër rek ko tax kër rek kër rek lay dindi waa dem ba mu yàgg mu ne ko xam nga ne pon moomu kat waaye nag këram googee moom rek la ci lijjanti sëñ Fallu daal di yëkkati trois cent mille yandal yandal policier bi ba ngoon mu yëkkati trois cent mille jox ko ne ko man man man ngaa dem tabax ko ndax kër kër kër kër kër kër kër yi kër kër kër kër yi rek. moo tax mu di ko lijjanti xoolal ni mu lijjantee loolu fi ne gis nga waa jooju nga gis moo xam ne moo yóbbu poon mi takkal Sëñ Fallu buy àgg di ko ba ndax lam jortoon ak lam ci jàppoon lépp gis na ko xam na ne Sëñ Fallu yu yërmande kese la bu àggee kër kër jooju Sëñ Fallu na moo yor kër bu àggee leneen dana ci dox bàyyi póon bi yàlla nag boo ko bëggee liggéeyal da ngay xam méthode bi ngay jaar pour mën koo liggéeyal Sëñ Fallu daa xamoon méthode bi muy jaar pour mën a liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala nekk ci jaam ñi di leen jàppale comme yëg na dara metti na la sañ Fallou lijjanti loolu kum yëg ne dara metti na sëñ Fallou lijjanti loolu mas na noo wax ni mas naa toog ci biir mbooloo benn waaye jékki-jékki rek daal di mel ni ku bëgg a dem ci mu koy téye mu ne eh, mu ñu ku ma ñëw waaye ak sa ba tiim ko ne ko dama bëgg nga jébbalu ci man xoolal ko toll ni sëñ Fallou xam nga nu mu ko lijjante daf na teg comme yàgg mu ne ko waaye ah, weddiwu ma la de waaye da ngaa fekk ma am sëriñ man sëñ tubaay sama sëriñ dégg nga li mu wax waa ji weddiwu ma la li ngay wootee kon mi ngi ci yow waaye nag fekk nga ma am sëriñ boo xam duma ko wooteeg benn sëriñ sëñ tubaa muy sama sëriñ sëñ Fallou noonu yi la fi nekkee woon di liggéeyal sëñ tubaab guddi di ko liggéeyal bëccëg wax nañ ne jumaa jii bi mu àggee dane ku ci nekkoon boo ëllëgatee loo am lekkal ndax sëñ tubaa lii ma doon liggéeyloo mat na leneen desatu fi waaye nag bu ñu demee ba tey jii liggéey ba di wéy ba sëriñ mun Muntaxa mii yàlla dogal école bi wala daara ji sunu borom subhaanahu wa taala war koo sottil jaare ko ci ay loxoom te sëñ Tuubaa ne yàlla defal na ma ko na ngeen xam ne loolu bokkoon na ci li desoon ci liggéey bi ndax sëriñ Tuubaa dane woon nañ ma ajali buñ ma ajalee ba noppi nañu ma taalal jàngu yi nañ ma tabaxal jumaa ji jumaa ji moom sëñ sëñ Fallou tabax na ko 68 la noppi ba sëñ Fallou noppee aji woon na ba mu ajee ba noppi daara jaa ngi nii taxawal nañ ko kon nag yii bu mu leen faat comme faat rek bay boo nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa faat na la allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa